waaw waaw ñaw yi moom toujours léegi ñëw day dox quoi ñëw moom léegi moom même bu dul événement sax léegi day dox. non man moom yëre góor laay ñëw yëre góor laay ñaw yi daanaka tissu moom ay kii la rek ay basin moo ci ëpp super 100 bi filafil bi filafil anglais bi yooyu noonu moo ci ëpp ñaw client événement dafa metti dafa metti quoi. client yi waaw ñu ngi ñëw tuuti rek tuuti tuuti rek changé na tuuti daal maanaam par rapport ak fan yi si ginnaaw daal. événement moom njaay mi dafay changer tuuti quoi par rapport ak bu nekkee bu dee dara xewul waaw bu dee heure yi moom lay xaw a tuuti quoi par rapport ak bu dara xewul daal maanaam fan yii daal tene na daal maanaam waaw tene na tuuti waaw dëkk bu naqari rek ñàkk xaalis loolu dong moo ko <laughs> am na gouvernement bees mën naa mu changé waaw ah, mais état bi comme fi jógee nii moom dëkk moom ñëpp si ñëpp métti woon na wax trop mais peut nag bii nag ni ñu am nañ yaakaar wax dëgg yàlla yàlla bu yaakaar kii rek bu yaakaar tas góorgóorlu rek ñu jéem a jubal liggéey rek teg affaire yi si yoon ñu daan fayeeku te liggéey ñu jógee fi rek loolu daal lañ bëgg teg réew mi si yoon rek waaw loolu daal la askan ni bëgg jub jub jubal liggéey ku liggéey doo fayeeku ku liggéey fayeeku waaw loolu daal leen bëgg.